que fi ñu ci Sénégal les dernières nominations euh, poste direction générale yi. Mhm. Euh, non noo ko gisee parce que sénégalais yu bëri nañ ko gisee mooy que ne def ngeen di leen neex li wuute ak li ngeen ñu waxoon. man lii la naa la ko ce qu'on a écrit ce qu'on a écrit dans le ça veut dire on ne peut pas dire on ne peut pas faire dire ce n'a pas dit ou bien on ne peut pas le projet à ce que quelqu'un a dit dans un contexte particulier peut-être affiné wul affiné wul toute la vision que nous devions avoir nañu ñun nous sommes un parti démocratique Mamadou Awa mhm. cette liberté de ton que j'étais su ma ko gëmutoon wala nekkul ci Pastef du ma Pastef nokkul fu yomb quand les instances se regroupent dañuy waxante dëgg dañuy affiner suñu vision wala suñuy proposition en fonction xam-xam yi fa nekk yépp nous avons plus de vingt-deux commissions scientifiques donc yi nga xam ne dañuy réfléchir le programme n'a pas été écrit par Ousmane Sonko le programme n'a pas été écrit par Bassirou Diomaye fay dañ see wax seen vision cadre wax si seen vision instance yi wax si seen vision ñu génnee un livre tuddee ko le projet di ko jaay rencontre boobu ngay wax le livre ba mu ngi fa woon par centaine cadre yi di ko jëndaat parce que ku nekk peut-être si benn domaine nga liggéeyoon maintenant tu as une vision globale du projet quand nous prenons tous les secteurs xam lu ñu mën a wax ba mën ko wax on n'a jamais il n'a jamais été question de dire parce que am na li nga xam ne dafa am lu yenuwul maanaam. da ngeen a gëmloo Sénégalais yi que vous valez mieux que les autres. non non tey jii nii les mêmes li ma gëm ba gëm c'est ce qui est dommage en fait maanaam gars yi dañu leen trois semaines si biir mois si biir mois si biir mois d' avril la ñu prêter serment si biir mois d' la ñu nekk ba léegi. Mhm. dama nañ mais les premiers actes posés. ñu posé aussi jëluñu leen comme ça et on l'a rappelé lors du séminaire. mais ki ngeen fal par exemple euh, Apix euh, chef de division la woon. amoon na loolu dox digganteem pour mën nekk DG. maanaam du pic au tac on le prend ci suuf yóbbu ko ci kaw. alors et s'il a les s'il a faut vous pensez que dans ce que nous appelons dama na la Mamadou Awa. avant man je n'ai jamais fait l'école d'être un président de conseil les grands travaux de l'État kooku ngay wax noonu il est très compétent Bathily et je le connais je le connais aussi il avait la, la méthode il l'esprit et la méthode di nga Bathily boobu ngay wax c'est quelqu'un de très compétent benn la ci rek y a aussi directeur HLM bi mais qu'est-ce que c'est des gens qui ont des masters en un plus finir jàng ils ont été à mon école vous savez que ne dans on les nañu bàyyi di. ñi nga xam ne maanaam opposition moo taxoon ñu xaw a tardé ci seen liggéey loolu nga bëgg a wax. bu teg ci tamit Sénégal li fi amoon da ngay jël DG bi il n'a même pas une licence ñu jël ko teg ko DG. Mhm. parce que dafa yàgg ci politique turam yàgg génn mais xale yi ñoo ko ëpp njàng ñoo ko ëpp xam-xam si li muy def il se reposait sur ses les secrétaires. mais ils n'ont jamais été confrontés à une situation où ils doivent prendre une décision loolu mooy danger bi en fait. dama dama ne la. te projet bi projet bi wala wala Bassirou Diomaye Faye le président ils sont euh, bien entourés c'est vrai waaw gouverner c'est prévoir. gouverner c'est prévoir c'est quoi ils ont lu le projet ils ont compris le projet. et ça suffira. comprendre ils ont les diplômes qu'il faut. l'État a une vision très claire de ce que doit être le Sénégal wax naa la fii secteur bu nekk xam nañ fañ koy yóbbu xam nañ fa ñu jëm loolu nag moom léegi lu ñu ko munti wax la vision doit être déclinée par l'État le premier ministre est assez compétent pour mettre au bout le gouvernement les ministres sont assez compétents pour mettre au, au, cas au pas les les les les les les DG. Mm-hmm. dama ne la gestion. axé su les résultats te les résultats. Euh, population yi am yaakaar. pour population yi falate nañ ki nga xam ne da ngay nekk seen kaw tu fais comme tu veux bëgg leen jaay wax ju bari ak démagogie les Sénégalais attendent ce qu'ils ont élu nous ont ils nous ont élus parce que gënuñu judd ñi fi lomb gënuñu leen doon ñu baax amaana ñu ñu ci gën a baax. bari nañ da nax Sénégal ba falu. yéen yéen a ko wax. déjà déjà li ngeen wax ñi affaire DG yi nax ngeen ñu def ngeen benn la a mu ne bu ngeen di véhiculer message homosexualité c'était juste pour leurrer leurrer nit ñi mais xamoon Bara Dolly la concerné nous avons été toujours cohérents nous avons été toujours constants nous avons manière structurelle nous aurons un Sénégal souverain et nous poserons les actes pour la souveraineté pour un Sénégal juste qui a une justice qui marche et nous nous vers le progrès en accompagnant aussi euh, le continent africain vers ce programme en étant un exemple à citer dans le monde. Mhm. li nga li wax ni du démagogie. gémaamoo démagogie taxul ñu fal démagogie mënuñu fi maintenir nous avons été élus parce que nous avons appelé à une rupture ñi ko fi waxoon defuñu ko gis nañ ko ñi ko fi waxoon pour une euh, une gestion vertueuse def une gestion vicieuse gis nañ ko tey Sénégalais yi war na leen ñoo leen porté woon à la tête de ce pays Sénégalais yi war nañ ne ku ñu bëgg a dindi ñu dindi la. Mhm. loolu nag duñ ci jaas ñun. et nous l'avons compris di nga ay waxu waxu opposant bu géej il faut aussi une opposition forte mais une opposition on dit de la critique de la critique que les catéchistes mais à condition qu'elles soient objectives